ci groupe am génn na nañ sant yàlla wala euh, da ngay continuer xool fond de jeu bi euh, benn bi la ñu dugal quatre-vingt-quatorzième minute arrêt de jeu yi lañ ko dugal malgré ça yàlla suturaal nañu yow naka ngay jàngatee taxaw euh, équipe bi. bon équipe bi euh, je suis je suis. tu comme sénégalais yëpp ah. Hmm. l'essentiel est oui il faut se qualifier dem ci phase de groupe phase de phase de. éliminatoire direct yi. mais li ñu def fee ci phase de poule yi bu ñu ko defee ci phase éliminatoire yi moom dis-toi que euh, campagne bi léegi mu jeex ah, hmm. ah ben parce que quand même euh, maanaam suñu équipe bi manqué na. Hmm. manqué na engagement. j'ai l'impression que gars yi ils se donnent pas à fond. Mm. c'est l'impression moi que j'ai hmm. je peux avoir tort. moi je par pas de ay projet de jeu ay yooyu du ma ci dugg mais la finalité en sport c'est toujours de de gagner en tout daal yow fexeel ba bu gaa yi ñibbi yow doo ñibbi hmm. c'est ça la finalité mais ñu ngi ci kon non ñu ngi ci yoon bi ah. on est le chemin de parce que <laughs> parce que la parce que l'objectif mm-hmm. c'est de, de de la coupe oui c'est ça l'objectif ñu ngi ci hmm. yoon bi pour dam hmm. gagner coupe bi mais nit ñi yoon bi ñu jaar yaakaar naa yoon bu gudd la waaw am na ay raccourcis du yoon bi gën am na ay raccourci raccourci yi mooy ngay ngay xam nga nit buy nit buy dem di xeex wala muy dem di def ci sport wala des trucs comme ça c'est important mu am taxawaay boo xam ni même bu fekkee safaan dafa am que les mën ko accepter mais dans ces conditions là je trouve quand même que notre équipe là des na lu bari mais bu ma la déggee yow joueurs yi nga gën a pointé parce que engagement par exemple. oui non mais xam nga y a yoo xam ne c' est am occasion raté que ça c' est pas l' entraîneur. Mm. ni ñuy taxaw ci terrain entraîneur mën na ko jubbanti. mais ñoom li ñuy war a def defuñu ko. Mm. ma par exemple tu tu regardes match de l' équipe du Sénégal doo gis benn attaquant bu dribble benn défenseur. wala doo gis benn milieu terrain bu infiltré wala mu def passe baax wala ñu def équipe bi ñu def 2 3 4 passes yu mm. xam ne ñooñu la wax ñooñu la ñu yaakaar ngay gis ñu leen di ñu leen di jox bale ñuy daanu di dox il faut pas toujours justifier des défaites ak di am ay alibi dafa tàng nangam yooyu c'est de faux problèmes. ah ci ñaari équipe non mais non attends mais Der c'est-à-dire on est en Afrique tout le monde sait que en Afrique euh, période bii dafay tàng. Mm-hmm. mais c'est la réalité et puis il fait chaud pour tout le monde. oui affaire bi dafay am loo xam ni man pour man dafa manqué. gis nga l'équipe de 2002 là n'est pas meilleure que cette équipe là. Hmm. mais ils avaient un plus ce plus là tout le monde le sait mooy xataraayu bi dem ba jeex. Hmm. c'est ça que nous n'avons pas dans cette équipe là il faut ñu dem vers ça et puis les gens dont on dit qu'ils les responsables ñoo war a yor équipe bi nañu def li ci war man je ne reconnais pas Sadio Mané. je le hmm. dis ouvertement et je l'assume. mais oui <laughs> mais kenn xaaru ko foofu dañ koy bàyyi foofu rek. il mais est-ce que moo fa bàyyi boppam est-ce que moo fa teg boppam. mani xam nga der xam nga mooy li ma la mooy. ce que je ne te reproche pas. mais je veux dire euh, je pointe du doigt le fait que yow ci joueurs yi nga këpp lépp. Ablaye gis nga ñun football. Mhm. football nañu. Mhm. seetaan nañu football couvrir nañu ay match yooyu yëpp fi lañu fekk mais dama ni le garçon. Mm. ci coupe d'Afrique bii nii il est surcoté. c'est-à-dire que deful lu ko jar. et il n'est pas le seul. co Covid bi et sax ça mais Covid bi mais Covid bi ñëpp la fi nekkal. ñoom ñoo def seen ay jombe ba Covid bi dalal. ils n'ont pas été prévoyants. ñoo fi def ay affaire ba avant compétition bi di commencer la leen Covid soog daan leen. six sept xaw ma huit personnes. avant ñuy dem mais mais nag c'est-à-dire que y yoo xam ne dañ on doit revoir ça. encore même l'histoire des même l'histoire des on a xaw prévu xaw ma ñaata pour les primes la mm. les primes également rapprochent on doit pour man topp. rem bi lu ci xam nga Ablaye Der si tu as un salaire de de de cent mille francs. ñu ne dañ la hmm. hmm. pour moi ces de prime la coupe on vous donne la prime. oui un le maillot là ça dafa am dafa am dafa am lu mu war a àndal. dafa am prix. Hmm. c'est sacré c'est-à-dire que le fait que yow ñuy xam que yow nga ñëw. mais l'équipe nationale du Sénégal mais vend bien ses joueurs. Mm-hmm. si tu na mais boo fa duggee mais ça t'ouvre des portes. Mm-hmm. ça t'ouvre beaucoup de portes. waxuma la si le plan sportif ah tu peux même trouver un sponsor tout de suite. Mm-hmm. mais ngir yàlla les gens n'ont qu'à se battre xam nga affaire bi il faut sa battre et tomber avec les armes. donc yow daal tu pointes du doigt l'engagement des joueurs Bamba